asalaamaaleykum suñu mbokku internet yu Dakar Net di kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñu topp seen rubrique euh, reportage dafay dellusiwaat ngeen ciy ànd ak Ouzin tey ñu war a waxtaanee lu doy li nga xamante ni daf fi amoon boobu ba léegi mi ngi toll si euh, fukki at ak juróom-ñett euh, di batalo Joola le 26 septembre la suuxoon ci waaxu Gambie yi. Euh, ci li nga xamante ni euh, moom la ci ñi ñin ñi nga xamante ni am nañ ci ay mbokk kenn ki tudd si Ismaïla Badji ñu war a dem war a waxtaan ak moom ndax moom sax mi ngi euh, nee na ndaam naam yoon deful liggéeyam boobu ba léegi nañ leen dimbali si ñi nga xamante ni seen i doom ña nga fa wala ñi nga xamante dañ ci ñàkk seen waajur état bi bañ a arrêté di leen dimbali di continuer di leen dimbali te nag ci li ay waxam nee na ñu génnee bato bi ci waax wi waaxu Gàmbi yi teg ko ñu ko def comme mémorial maanaam at bu jot ñu dem di ko mën di mën a ñaanal di fàttaliku seen mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo génn àddina ñu déglu Ismaïla baaj moom mu wax ñu si mbir mi nan la ko dundee. comme tout sénégalais euh, fi bi may simi sama tenue di liggéey sol sama tenue bi di liggéey ci laa dëgg Walfadjri muy sonné euh, ñu joxe message comme quoi euh, bateau le Joola moo suur ki biir ndox bi quoi mais. comme tout sénégalais réaction bi ñëpp amoon man tamit moom laa ci amoon. parce que au départ man xaw ma woon ni sama mag bokkoon na ci bato bi waaw mais bi ma ñëwee ma woote kër ga ci lañ ma ne sama mag bi dafa jóge dafa quitté Ziguinchor mais ci bato bi la dugg. Euh, am na suñu benn mbokk sax boo xam ne militaire la moom ñun dañu jooyoon fii parce que dafa demoon pour jël bato bi mais yàlla nu muy def ku narul bokk du bokk dafa ñëw pour dugg amuloon place mu dellu. Euh, ñun fii jooyoon nañu ñu yaakaar ne bokk na ndekete bokkul mais man j'ai des frères j'ai des amis ñoo xam ne ay proches bi ma de toogee un an après ma dem Casamance bi ma demee Diouloulou am na ay famille yu bëri sax ñemewu ma woon laaj seen doom yi parce que la première personne koo xam ne kooku sama xarit la ñun ñoo bokkoon classe dama dem seen kër bi ma wàccee garage dem directement seen kër balaa ma yegg suñu kër ma daje ak papam papam ne maa koy laaj ana diw mu ne ma diw yàlla lu muy def bokk bokk na ci bato bi ci laa jaar laaceetuma ceen ku ma ci dem su ma la gisul xanaa may dajaak sama xarit yi ma laaj leen ñu ne ma ah diw lii la wala diw dafa voyagé wala diw lii la euh, mais impression bi ma am ci bato bi euh, métti na pour waa Casamance parce que Casamance moo ci jee parce que boo ci xoolee bachelier mooy étudiants yi nga xam ne ñi jëloon bateau bi donc avenir Casamance moo nekk noonu ci biir géej bi waxuma la matériel bi mais avenir xale yi ñi nga xam ne ñi bokkoon ci bateau bi avenir Casamance la. parce que ay xale yu ndaw am seen bac ñu dara retourner université pour jàng xale yooyu ñu yeewoo benn jour ñu ne papa ji yow sa doom ji mu ngi noonu euh, daa lab ci jëy bi dafa metti xamal li ci gën a ne sa doom. yàlla génne ko àdduna nga gis néew bi dafa neex mais koo xam ne yow da ngay toog di imaginer fu ñuy compter ñu ne noo am na ñoo xam ne seen néew bi dafa génn yow da ngay dem pour dem xool ndax sama doom bokk na ndax sama mbokk bokk na wala kan bokk na donc euh, boo demee ba affaire bi dem ba fu mu toll ni tey laajuñu dara état bi luñ ko laaj tey mooy comme mënuñu dem procédure judiciaire boobu arrêté nañ ko donc ñu jénneel bato bi dem teg ko benn place boo xam ne au moins ñun dinañ ko def mémorial bato boobu buñ ko génnee tey ñu dem teg ko foo xam ne dinañ ko def mémorial njomde safour e la di ma teñe manu bajandi funaka fan banjum fatijat fanko nenya le 26 septembre le 26 septembre wane e marqué pour bukanola kati babu kazamas funak fan manje bukana kutu kungolent kulong fo E, fukara fati ara misai tirab arjumai e batoyi e pour le casamance e joyiriŋo deedi fala fukara de baj e, e yo e yoki finalement e mbile e lo derri falaf e ñanane lo on falaf kuŋol kujaw kukani secouré pour man kuŋol ne kupreli e baway kan manje siñinde kan siñinde soli jaat kankan bono yeti casamance la avenir e kila yola ɓoye waren moy kan eno donc asabari mana rambeni mana kani disi projet san manje pankugone kubaji kajom tan kujeɓe sof man labange yoli e jak e law ati mo fam e pop bokana kanuma jon ka uñana wolola emte kane mi tey e juutumi arjana emte kane mo fammu rentende ni yoli wanko kane baɓe bamanjut emi te de balil wanku kane poba manje emite pop de yam fuy eh sax ñu demoon nag ku nekkal di naan dañu am lu fi xaw ñu ne bato bi léegi ñuy commencé di laajcante ñoo laajte ñu ne ñii dañu demoon pour jël ci ñu nag ku nekk di tiit nag ok ci la ñuy yëg ne moom bokk na si kii bi si bato bi waaw daal di gaañuwaale foofu waaw. bokk la loo leen bokk. papam ak sama sama kii sa ñoo bokk benn kii moom ak yaayam ak sama pa sama kii yaay ñoo bokk benn ndey suma doom ndey waaw. ñoom ñaar la keneen ki suma doom bàjjen la waaw moo gaañu. yéen xibaar bi noonu leen ko noonu leen ko dundee bi ngeen yëgee bato bi suux na même bu dul yow mbokk ba la jege waa Casamance ñu bëree bëri ñàkk seen seen seeni seen doom noo dundalee noonu leen ko dundee. ah xanaa métit rek métit kay moo ñu ci ba léegi kay fàttewuñu ko sax ba léegi affaire bi dafa metti metti nañu ba tey kenn ki eh, surtout xale bu góor bi moom sa takkagul sa jabar xale bu ndaw la keneen ki sama doom bàjjen bi moom mag la. am na ci moom mag na waaw moom tam ci la bokk si affaire bato bi waaw ku joña fang baabe ñe ban ko puru ña ante kan eh, ku lako ku juwati kati bukana burom baabe ñe mo ante kan en pop ku wala burom ban ku joña fang baabe ban ko puru ña baabe waaw